safar man gëw ma lu dul suñu mag ñi liñ fi nekke woon ak yoon wi ñu tabaxe woon réew mi mhm. nañu grâce ya ndaw ñi ci màggalu Touba lii mooy grand grâce mhm. ba ci président Ousmane Sonko laa koy tàmbalee ñu ibbi leen ñu toog waxtaane réew mi te xam ne roo bu ndaw bi fi nekk mënuñoo paajoo réew mi mhm. dafa tuuti ci ñoom mais Sénégal ni mu ndawee nga fiy dégg xam nga ne benn nit rek mën naa tabax Sénégal buñ la waxee li mu yor ci ay milliards arrondissement bi ñuy wax ba ci Touba buñ ci jëndoon ay mouchoir clinique si teg ko ci mbedd mi buñ jëndoon milliards yu yëpp ay mouchoir milliards yi rek mën naa fattu ndox mi ngay yan machine ngay gis yuy jël ndox mi yan travaux yan fi def yoo xam ne tey réew mi dana jóge ci loxo yi jëm ci yeneen loxo ok mais nga xam ne oh. dama bëgg ñu des ci détenu yi que jamono jii ñu ngi ñuy seetaan euh, te te te te seen cas inquiété nag vraiment ak aussi ba léegi parce mhm. yéen ñu ngi wax détenu yi ne ci biir mhm. mais ba léegi ñu ngi wër di jàpp aussi les ah. des Sénégalais moo tax ma lay mastaw di yow mii toog ba ci man bi mhm. sama bopp laa njëkk a jaale sëñ bi lenn la ñaan nañ Macky Sall nag man de dootuma bokk te ñi koy ñaan man nañu may maki ku ko ñaanut mais sëñ bi Sénégal bu ñu demee ba suñu kilifa yi ñuy ñaan te mayuñu leen ñun fan lañ jëm tey jii bu ñu toogee fii nga naan ñu ñaan leen mooy ñun dag ñoo yàpp yow mii toog première puisque bu ñu ñaanee du ñu may. lu ñuy ñaan puisque at mi yëpp ñu ngi ñaan sëñ Mountakha mi ngi ñaan ñëpp a ngi ñaan. mais bu ñuy ñaan détenu yi ñaan wëratu fee am Macky Sall bëggut yi may ma wala mënoo maa tëj lii da koy bañ. boo nee ko mënoo maa tëj force dina la tëj. boo nee ko may ma du la may. ok kon kooku nooy waxee ak moom ak ban potoxlu lan war a mën a jaar suñu kilifa di yi ku ne la ñu wax mi ngi lay wax naka sudul noonu sëñ Muntaxa boo ko gisee léegi da ngay yërëm ay xale yu ndaw sax ña ngay toog di kalaame mhm. mais ki war a jëf lan moo tax jëful man damaa gëm ne régime bi fi nekk mais est-ce que sëriñ si aussi euh, situation bi mu amee woon mars mhm. euh, dëkk bi yëngu loolu mhm. ñu def intervention ñaan njëkk mais jamono ji aussi tekk tekkaaral loolu duñ ko defaat euh, seex bi fitna yalla suñ borom dafa reub ki yee fitna gis nga mbiri president Ousmane Sonko motax bu ken tal bu ken toj na ñepp na tek li ma lay wax nak bindu ko denc waaw li ñew mo dak te yëf yi ci dess ay heure ku toj yak ko ku tal yak ko yalla gis na wallahi alazim képp ku gis xéewal yii daw di ñëw senegal dara du la jaral dara te doo jël gaal bi sax génn réew mi. ña bëggoon ñu toj ak ñay taal ña ànd ak président Ousmane Sonko yàlla suñu borom mooy borom fa xaaloo li maa yuridu te Sonko nit la koo xam ne ku gëm yàlla la xam nga taxaw naan damaa gëm yàlla tekkiwul ne gëmoo sëriñ bi wala gëmoo mag ñi sénégalais léegi niveau bi dafa wàcc ba ñuy jabolise Sonko lenn rek lañ mënoon ci moom wax naa la ko ñaar dafa ànd alal ak jigéen. te Sénégal léegi boo ñëwee sax buñ lay bàyyi njaase mii fi ne ci lenn lañ koy fiir ci jigéen te duñ ko jàpp waaw pour noppiloo ko mm-hmm. dama la bëgg wax na la man mii buñ may fiir wala ñu may xas ci maa tëddee diw waaye sëñ bi ku dul sëy amut di ku dul ah mais bu dee cent quatre-vingt-dix yëpp ñi ngi ñi ngi njaal laqatu di njaaloo yàlla di ñu suturaal mm-hmm. man damay njaaloo mm-hmm. yow mii da ngay njaaloo keneen ak keneen noo dañuy njaaloo mais yàlla ñuy suturaal sa jabar waaw dégg nga yàlla la ñu war a ragal ci li ñuy def mhm. mais dama la bëgg wax ne la Sénégal amuñu argument amuñu xam-xam mhm. fenn rek lañ lay koosee moo sëy ak nangam moo tëddee kii mais loolu lan la loolu du dara